jàmm la léegi nag euh, dafa jot daal fan yi ma ma jub sama bopp aar sama bopp bu baax a baax boo xamante ni du ma def kenn lu bon waaye ku def ci man lu bon ah mu këpp sa kaw rek aussi sama der bi dama ko war a sàmm ndax bari ki dem rek ñoom agressé nañ ma fii jël ci sama téléphone boo xamante ni bii waaye bi ma sama nijaay yónnee woon papa Goro Samb depuis Amérique mu agressé téléphone bi ba sànq suba jël sama xaalis te der bu ñàkk der bu tëgal bëri bu ci la bokk sama xarit boobu daan fi ñëw sama xarit maara boobu noonu te xeet ah defal nag ay fan yi ay traitement defal ay ñaan sama yaram ba mu ba mu baax ba mat nak. léegi nag mu ni man nag bëgg der bi sama baay mhm. alaaj bett baay moo daan wax naan daw day fexe am dërëm dëgër paaka du la dugg fetal du la dugg lancet du la tagg léegi mu joxoon ma ay bagage bu jox ma benn ndomb goo xamante ni indi naa ko ko war dama gi pour gi pour gi sama yaram dama ko yow yaay sama cuq bombe di aw buuru këram yow nag ñaari ah, léegi nag mhm. ma bëggoon essayé ko xam naa ni yéen ah lu ma bëgg lu ne di ngeen ko def moo bëgg yàlla jaamu man man de dama laa bëgg ma nekk ngeen ba jeex daak xanaa xam alamin kon nag léegi léegi jox ma sama paaka paaka bi ma teg foofu léegi ci biir nekk ngeen paaka paaka bi paaka bii nag moom la ma dali gaw la jox gaw la mel waaw nee ma pour tul ji dugg ci sama yaram faaw ma tër kenn ci yéen ñaar jaay mbaa nga ngay rendi du dagg du dagg du dagg nekk xama indi mbota bi ci kër toogal toogal affaire xaar bi du dagg moom dafa moom xamul lu ma neex ci moom dafa ay c'est que. waaye fas yaa ngi fii ci ginnaaw bi. du dagg. damay tër rek nga tëdd rek xaaral ma ñëw ma eh, ñett dangay mën a wax ak di <laughs> la rendi danga mën moom ñaareel la xel la rek. xanaa du yaay ma sang bi déglu ma xalaat ma suñu dem ba góor. man de bañu dee waaye lenn ma ci jaaxal rek njaboot gi. dégg ci kaw bu baax loo may woowee. ah xaritu jëkkëram ñaareel xaritu jëkkëram kon jeex ndagam yow man maay sa xarit man maay toog wéttali la ndagam moom dafa jur te man juruguma xale bu ndaw moom mun naa dem man ma jéem a xool lu ma juree waaye kon ma tëdd kuy waree di ma njaboot yàlla mi la ko jox moo koy la da nga di góor doo leen mën a du dëgg du dëgg damaa xam ne nga xam jurut mënumaa toppatoo samay doom du dëgg doom yaay rek moo ko mën a toppatoo ma ñëw wax la wax xal ma sin demba góor ba rek ma dund ndax sama doom yegg ñañ may ma ma ñëw kii nga xam ne juragut ba mu ay waay mbépee bari nga wax mbépee yow muy ndagam ahe axastement yow muy mag jos bi nga doon nga xam ne dangaa jur kër gi bu fees na nationale nga jur ndagam yaa jur te man mi jurugoo man xale bu ndaw <laughs> ak maa a toog nu may toogee ëpp na dama tëdd ñu rendi la fii wàcc en tout cas daal foog ma essayé essayé ni jaay en tout cas bu ma essayé amu fi werante bi amu ko fi moom nag moom eh, essayé damay essayé baal ku yorante il faut ma essayé xalaat ma sin dem baak góor njaboot gee léegi mun a wax maa ngi dem suñu kër sama kër papa laa jëm bagage ko nag sama doom ma am ku ma leen ko xanaa du sama coxu bombe tey ma ko nag kii nekk ci coxu bombe bi na sax léegi nag xam nga wuy ma moom sax affaire bi da koo moom sax xam nga kii maa ko doon xëbul noonu rek mais affaire bi si doo dee. ah dama dama dama ñuy tëdd rek yow xamoon naa doo ma tëdd. da ngay tëdd rek ma rendi ñaar damay dem biir si rek rek ma essayé mu ko defee yow nga wax. daa may xaaral frais lu ëpp tuuru yow nag damaa defe na say nag naan si wu. yow xaaral ma ci kaw ba suuf. pour nekkatuma jékki-jékki. nekkoo benn jékki-ñay jékki-ñay nu muy tëralee ni bi ko la da nga bàyyi mbotee xare. yëpp léegi da nga may sàllal. yow papa nga wax. jekki njañ munta ne man papa ku ma koy wax man danga may danga may suturaal bëgg ma bëgg sama bakkan yow ay bu ñuul seetlu nga li ngay wax du bu ñuul bu maroo la xamala laa la yëgal xamala laa la yëgal de eh daa may xaale rek leel de xamala laa bëgg ah daa ngi may jox xamala mënatuma wax sama tension bi moo tëdd ba ci kaw boo ma ree de barki yonent bi bon nga man de waaru na kii tàpp cuq bombe cuq bombe kii jekki njëñ guddi jekki njëñ bëccëg ndekk tey yoo jekki war lañu